Euh, Covid 19 itam yaakaar naa ni dundoon nañ ko mu metti woon lool gënoon na fi metti donc je pense que à ce stade là war nañ ko mën a gérer comme ni ko docteur Bousso waxee. moi je pense qu'il a bien fait sax mu génn. parce que mm-hmm. Sénégal tam parfois dañuy dañuy ëppal ci yenn situation yi jël ko envenimer ko yóbbu ko ba mu créer benn psychose. Euh, parce que nit ñi tamit euh, feebar la boo xam ne tiitaloon na nit ñi les gens étaient dans la peur total donc du coup bu bu ñëwaatee ne ah lu toll ci et on on nous a dañu jox chiffre 60 pour cent yi imaginez xam ah, nga day rëy si si si lii ñu la 60 pour cent yëpp. dañu am Covid. Mhm. donc ñu ñëpp ñëw Sénégalais yi dañuy nekk ah kon Covid bi dugg si waat na nit ñi nekkaat fi dugg génn euh, kii donc moi je pense que c' est bien au euh, docteur euh, ni li mu def moom. mooy au moins ça va apaiser les esprits. ñu xam ne que c' est c' est juste des une situation ba xam parce que wax na ko aussi peut être je l'ai pas dit sax mais nee na ci explication aussi nee na. Mhm. est ce que gis nañu. en Arabie Saoudite ñu déclaré foofu crise sanitaire amul foofu crise mm. sanitaire mm. donc ça veut dire que c'est tout à fait normal li ñu ah, nekk di dund nii yaay bu waa beaucoup de morts ñoom lu ñu lu ñu wax noonu tàngoor bi la mm-hmm. te ñoom communiqué nañ ci donc bu fekkee nag yow tu as des anomalies yoo xam ne ñàkk wérgu yaram la boo xam ne loolu la aussi dañ koy traité rek après nga jàll ci leneen donc c'est pas la peine que waaw corona corona après mu duggaat fii mettraat nit ci ci yenn psychose yi c'est pas